xalifa cheikh Mouhamad al Mahi googu ndax dama koy wax nekk xalifa nekk borom xam-xam te fu la neex làkk buñ la lakk nga tontu ko loolu bàyyi ñes rek ko am te wane na ko kon su demee ba tey mu toog wane loolu tey ci Daafour ñaan ñu bàyyi ñaan président bi ak rebelle yooyu ñoom ñëpp ñu nekk ci jàmm yàlla delloowaat mboy mboy gi yëpp ci jàmm loolu ci Cheikh Ibrahim ñas la moo tax encore une fois maa ngi koy wax ñëpp journaliste yi ñu wane suñu liggéey ñu ñàkk wane suñu liggéey loolu yëngaluñu ñun kër Cheikh Ibrahim Niass parce que ñun Baye wane na li muy def ba pare ndax Baye li mu wane mooy jël na ay avion dugg na ci gaal yi dugg na ci fu nekk lépp pour dem wane li nga xam ne mooy lislaam te wane na ko te am nañ ci ndam kon daa Daafour gi nga xam ne foofu lañ jógee muy Cheikh Mouhamed El Mahi vingt cinq millions habitants la te région la te soo fa demee ñi ñëpp taalibe Baay lañ sàkkantuma nag ma ci boppam moo tax nag suñ ñu wanee yàlla wane nañu suñ ñu wanewut yàlla wane wane nañu ndax lu em nii ci kaw àddina dara gënu ko rëy gën a gënu koo nekk événement man moo tax may waxaat lancé di wax ne ñun jeunesse taalibe bàyyi nañ jàppoo te booloo te nekk benn te xam ne bis bu ñu jàppoo nekk benn kenn xajut suñu kaw parce que ñun rek mën nañoo tabax àddina sàkkantuma nag waxuma la Sénégal gi lan moo des li bàyyi defal ñu ñun kenn ku ci nekk muqaddam nga kenn ku ci nekk yaa ngi oote sëriñ nga te wóor na la sa baay defalu la ko sa ndey defalu ko bàyyi nga xoote ñu yëkkati liñ am di la ko jox ngir Cheikh Ibrahima Niass kon nañ delluwaat ñun tamit delloo Cheikh Ibrahima Niass lim moom te lim moom du alal du dara waaye booloo nekk benn nga xam ne ñuy xàccandoo di dóorandoo ci combat boobu laa nekk tey nag suñu ndam la ñun waa Kër Baay ñi ngi aéroport kon nu ma ko waxee woon bu ñu kenn rey nag ci waa nguur geeg ku mënti doon ñëw di ñu wan wanu seytaane déedéet soxla ko mooy tey kii nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy président de la république waroon na cee def discours bu rëy ndax am na yoo xam ne amul solo amul fayda yaa ngi bind sa Twitter di ci bind di ci def lépp lii nga xam ne nag àddina ji nga xam ne ñëpp a ngi koy xool ñëpp a ngi koy seetaan ñëpp di ko ndamoo pourquoi pas doo jël sa micro gërëm ki nga xam ne mooy Cheikh mu Al Mahi gërëm kër Cheikh Ibrahima Niass man loolu laa gëm kon nag yéen ñi nga xam ne tey yéenay jeunesse su Médina Baye nekk ci média bi maa ngi leen di lancer waat encore beneen message message bu ma leen di lancer mooy na ngeen ma oo nëbbu ma sama numéro 615 22 deux ñu jàppoo ñun ñëpp ñu xool nu ñuy def defaral suñu bopp defaral suñ lépp fay nag moom fay la luñ ñëw monter ko suñ joxee ñu tegal ñu ko ñu wane Baye nan la mel ci àddina bi lii laa amoon pour wax ko man waxuma sax état sax. waaye képp koo xam ne jullit nga tey waroon na laa fekk fii ndax Baye Niass liggéeyal na l'islam loo xam ne ñun ay doomu Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent ñoo fi nekk ay musulman lii nga xam ne wàllu diplomate ak diplomate waaye xoolal ñoo ñu doon xeex di rayante jullit lañ te jullit yooyu doon rayante tey benn jullit borom xam-xam boo xam ne cheikhul islam lañu koy wax mooy cheikh Mouhamad al Mahi moo fi jógee dem rek la ji ko kon képp ku doon doomu Sénégal ak tariqa boo mën a bokk ak foo mën mënti bokk su xañaan nekkut ci yow xol bu bon nekkut ci yow war ngaa delloo bàyyi ñas tey njukkal kon nag fii dañoo waroon na fees tepp waaye ñun ñii rek fees nañ ko sant nañ ci yàlla te yàlla rek feesalal nañu ko ndax ñun yàlla lañ àndal ñun defuñ dara ci puukare te lii Cheikh Mahi def defu ko pour puukare defu ko pour nangam moo daggal boppam billet moo ànd ak ay rakam ba muy dem kenn oowu ko mu dem loolu yëpp mu ngi wane ne bàyyam la waxoon ne yéeg naa ci avion yi yéeg naa ci géej gi ñu ne ko bàyyi foo jëm mu ne lu dul lislaam damm-damm yu am ma dem jàngarti ko kon loolu la Cheikh Mahi def tey kon yooyu ñun dañ ciy sant yàlla amuñ kuñ ci xaar stressé ñu ñëw yokkuñ ñu ñu ñàkk a ñëw wàññiwuñu waaye ñu ñëwoon dafay rafet ne ñun ñu xam ne ay sénégalais lañ te nañ xam ne ñun nationalité sénégal lañ yore ak lu ñuy nekk nekk nekk international waaye ñu ñëw ak ñu ñàkk ñëw defuñ ñu dara kon mburu moo xam ne dañ koy romb di ko jaay rek moom la ñuy def ñun taaliba Baye amuñ lu ñuy ragal amuñ lu ñu tiit Baye rek lañ gëm te Baye moo nekk suñ kanam asalaamaaleykum wa rahmatulah wasalaam ala rasulillah sayyidina muhammadin abdillah wa xayri xalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax di ak contentement bu baax uysi bi nga xam ne taalibe yi uysi nañ ko waaye di kontaan bu baax ci bi nga xam ne mboolem muqaddam yi uysi nañ ko maa ngi taxaw ak nii kuñ ràññee kuñ xam muy kan Baye Ëwël représenté fi mboolem muqaddam yi Mawlana Cheikh al Islam donte gis nañ fi ñu bari ngir lan ngir tertu xalifa al muazzam Cheikh Mouhamad Ibrahim Niass al xaadimul ci mission bi nga xam ne remplir na ko fële ca Soudan mission bo xamne deug deug mission gënu ko reuy mission mission gënu ko taru mission gënu ko rafet ci li nga xamne yàlla may nako ko fa comme num ko may won waajuram maulana Cheikh Islam Hadji Ibrahima mi nga xamne mo wax na bul ummatu xasdi fihimu an asuqahum ila hadrat al lbari rahim ila ina lima bëgg ci mindeef yàlla rek moy jëlé leen ci géej lëndëm ci géej raglu indi leen ci tefes gëm yàlla dajale mbollem qabaili nga xamne nek nañ ci Soudan ëpp juróom fukki euh, xabila ñoom ñëpp ñu toog ci benn taabal ñu déggoo ànd ci teg mbooleem ngàndaay dëgg-dëgg loo xam ne Nations uni dox na ci lu ëpp vingt ans ba trente ans bu yàggul rek ci biir koor gi dégg ngeen ñeenti téeméer ñoo xam ne dee neen fa ñoom ñëpp ñëw nañ ci kanam Cheikh Mahamadou Mahi jébbalu na ko nangul neen la comme nun doon nangulee sa waajur Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima ndax ñun bëggun kenn ku dul bàyyi xamun kenn ku dul bàyyi suñ xol bi boo ko xaree doo ci gis kenn ku di Mawlana Cheikh Islam ba jàpp nañ ne tey Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima moo ñëw suñ biir lépp lu mu ñuy ñaan dinañ ko nangu moo tax bu mu defee lool rek ci la président bi si sens yi ci la rafa xaalat tajwal ci la dind mboolem euh, sécurité état d'urgence bi mu mu jeexal ko fa dëgg-dëgg loolu rek doy na ndam loolu rek doy na yaakaar ba tax na ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla Cheikh Mahamadul Mahi yàlla na yàgg dem ay mission yàlla di koy yàgg may ay ndam te amul sikki sàkk ne dina ko may ay ndam ndax lum aw mooy yoonu maamam yoonu baayam maam alxaaj Abdoulaye ku nekk xam na ne mooy mujaahid la woon Mawlana Cheikh Islam Xaaj Amas ku nekk xam ne mujaahid la woon bon euh, haadihi l aqdaamu min tilka rek euh, ñu ngi gërëm presse bi yëpp di gërëm presse Sénégal bi ak presse euh, Medina Baye bi ak mboolem ñu fi toog ci yitte yi nga xam ne daf ngeen ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla mottali sëñ bi yàlla nekk seeg jàmm ñu gungee ko mu àgg Medina ci jàmm ndax mbir yëf yëpp mu ngi Medina waaye dafa mel ni nag Dakar bàyyi luñ Medina dara ndax gis naa génn buñ génn ci yoon bi rek am naa deux heures de temps bu dugg si loolu fekkee na am na lu muy tettal mooy ne ñëpp a ngi dégmal aéroport pour ñëw teertu Mawlaaya Xalifa Cheikh Mahamadul Mahi Ibrahima Niass